Eh, am na ñu commencé di fenqal ndax am na ñu wax ne Ousmane mii dafa war dem toog bàyyi jomaay mu lëggee loolu du wax mhm. Ousmane moo boot jomaay xuus moom ci biir géej dégg nga li tànk yaag jëmu jaag boobaak yëpp Ousmane moo tunqoom ko génn ak moom ci bit waaw mais ni mbër moo xam ne da nga ñëwoon di bëri moom mu tunqoom la daan daan bi ba wàcce la yow ci cumeekaay li mooy mooy diggante Ousmane ak jomaay mm. ndax fitna bi eh, ba netti naa ko ci wala yoon bi ñuy wax ay ndey ju liggéey may leen ndey tuuti la ci dégg nga ñaan lenn la ci dégg nga ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ñett mooy tax asalaamaaleykum mbokku internet yu IATV nuyu nañ leen niñ koy defee jamono bu nekk di ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne dañ koy faral di ànd ak yéen ñi ngi fii ci Taïf ci kër sëñ Babacar Ndiaye xaadimul xadim war a waxtaan ak moom ci jamono waaye wara a waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi wala a waxtaan ak moom tamit ci ak e, ak njub ak baaxantal bi nga xam ne wala boog ak soññe boo xam ne dina ko def ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi xam naa balaa ñuy guddal rek dañ koy bàyyi mu nuyoo waaye joxe ay kàddu yi soññee ci ndaw ñi balaa ñoo dugg ci dëgg-dëggi waxtaan wi bisimilah sëñ Babacar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ alhamdulilah alladi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullah Cheikh Mamadou Fadil ngi leen nuyu sëy ñu ngi nuyu waa Diop mu ngi nuyu waa réew mi yëpp di nuyu suñu ko ci Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak ay naalam ak bëgg-bëggam yëpp yàlla matal di ci di ci teg suñu kilifa Cheikh Ahmadou Moukhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudoos di ci teg eh, sëñ Abdourahman eh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Bombali muy xalif sëñ Mbàkke Madina ndax loolu tegale bi sëñ bi sëñ Moussa Mohamed suñu kilifa moo ñu waxoon ne eh, samay kilifa bu ngeen may bu di wax lu jëm ci man na ngeen tàmbale ci ñoom muy sëñ sëñ Bombali muy sëñ Mbàkke sëñ Cheikh Madina teg ci sëñ Abdourahman teg ci suñu kilifa sëñ Moussa Mbàkke Mohamed di ñaanal yàgg leen fi siyaara bi nag ñu ki ñu ngi ciy dugal njabootu sëñ Tuubaa gépp mën naa ne sëñ sëñ abo mu Cheikh Mamadou Faril ak sëñ euh, euh, sëñ Mamadou Habib mu sëñ Abdou Borom Dër bi ak euh, sëñ Cheikh mu Cheikh Salihu ak sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh mu Cheikh Abdou Khadir ak sëñ Cheikh mu sëñ Chouaïbou ak Cheikh sëñ sëñ Mamour mu sëñ Mouhamadou Mourtala mën naa daal bëgguma ñu jël ak sëñ Cheikh Damaata buñ tuddee dañuy bëgg tudd la ñun ñëpp ndax ñuy suñu kilifa ndax amuñ lu ma sëñ Tuubaa kon ñu tàmbale ko ci ñoom euh, bu ko defee nag kon ñu ñëw ci waxtaan wi li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg mooy euh, gannaaw boo xamee ne amoon na lu fi doon waaj lu ñu doon waajal muy lu mel ni élection muy lu am solo ndax euh, ñi am solo ñëpp amal nañ ko solo ndax gis nga sax am na ci soxna yi kenn koo xam ne magam dafa fekk mu nekk urgence ci Tuubaa hmm. waaye dama ko jël jëlal taxi nga bàyyi ko fa daw ñu woote ndax kart lu seer la waaw nit bu fekkee xam na xam ne lan mooy tànn sa président tànn sa njiit ndax soo ko sorxaa sorxaa da nga tànn koo xam ne juróomi at da nga ne ci fitna boo xam ne te defe naa ne kenn ku ne sa masuuliya sa responsabilité du ci du ci génn moom buñ seetaanoon bañ tànn ñeneen ñu ñu war a tànn loolu yëpp dana ci am ñii ñu yaakaaroon nag nga xam ne dañoo ñëw jël seen procès ñëw toog si ñun wan ñu ko ñu xool ko wóolu ko am ci yaakaar moo tax ñu ci doon topp waaye ñu bëri léegi ñu bëri dañuy wax ne ah man de mosuñu gis sëñ Ba Cheikh Babacar nii di wax ci yu mel kon nañ ci góorgóorlu ma ne waaw loolu de loo xam ne da dana soññ kenn nit rek loolu danañu ci taxaw wax ndax loolu rek mooy li ñu fi bàyyi sëñ Cheikh Saliou radiyallahu anhu danaan wax naan ñu ñu ñu góorgóorlu ci li ñu fi di bàyyi ñu fi muy maa xalaxtul jinna wal insa illa liya'budun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yutimuni inna lahu warsaxu sul xooti matin loolu yàllaa ko wax ne nit ma leen binduma leen dara dara lu may ñu jaamu ñun nag bi ñu ci jaamu gi ñu jaamu yàlla ni ñu ko taanee ni ñu ko organisé mooy dañuy ñëw rek topp Sëñ Tuubaa ndax sëñ bi jëmm ji maanaam man naa ne bu fekkee dafa am ni ku bëgg a daw gis benn fasu naaru góor wu jaar sa daw bu romb la wala benn katkat bu daw bu romb la nga nga di ko séen di ay tànkam doo ko mën a jot waaye dana tax nga mën a daw xale yi sax dañ daan langaamu ci geenu fas bi ni fasu yi daw boo dañuy raw seen morom ñoo xam ne Sëñ Tuubaa moom kenn mënut a mel ni moom duut loo xam ne sax dañ koy wax wàccandi ko toog waaye nag ku ne xam na ne Eh, lii ko yàlla programme yi ñii nag dañoo niroog sa doxinu Sëriñ Tuubaa maanaam ñoom so ñoom ñoom Sonko ñi Ousmane Sonko ñi mooy si doxinu eh, Pastef yi da koo niru mooy maanaam dafa mel ni ni ma ko bëgg a waxee mooy saahir ak baatin Sëriñ Tuubaa moo jël baatin bi bi sëñ bi ñëw fekk na tubaab bi ak colonialisme yi daane na ñëpp ndax am na sax benn téere ma ko doon bind doon ko ci wax ne boo xoolee Lat Joor ku mënoon a bañ la eh, gis nga ne ku gàtt ay arab guddul waaye jaayantoon na jaay bakkanam jaay ko tubaab bi même bi mu ba sëñ bi ne ko baal nguur ma jox la lu gën nguur daf ko dafa ree man nga ko waaye dañoo ëllëg dañuy daw ëllëg loolu nag moo bëriwul fi mu ne nii ci jamono ji te ñu bëri ñu bëgg ñëpp eh, geesuwaat seetluwaat bàyyaat xel ne eh, ëllëg eh, suñu wajur sëñ Bajor Seck radiyallahu anhu ñu ngi siyaare sax waa Touba Sam yëpp di sant ci taxawaay ñu taxaw ci élection yi waa Nioro ak Touba gi ak Taïf gi ak ñëpp réew mi daal ñu ngi sant ñëpp ndax ñëpp taxaw na ci waaye dafa daan wax ne ngir nit bàyyi xel kan a taxoon bakkan bakkan bàyyi xel kan moo taxoon suñ euh, Cheikh Xadim bi mu ñëwee fekk ñu daane mboolem ci Omar Fuuti li ko yàlla mayoon muy wëliwu kaamil woo xam ne kenn du werante mbiram fi jaar ñoom ba dem dem dem ba xam ne yéeg ne euh, mbir ma mbir ma fa mu mujj ñëpp xam nañ ko ba mu ba nga xam ne Maba Jaxu ñëw na ak kilifa yi ko jàppale tubaab yi indi bi ñu demee daaneel leen ba ñu demee ba indi këru nag da nga xam ne fu mu ne nag baaxatul nag kën nag lenn moo man ci dara ci kënu muy kun mm. kon nag kun kun fi yëkkoon muy suñu borom kunay jog rek muy yàlla yàlla nag moo toog feeñu ci jënd jëm ji wax yool xarim ñëw mu bëri tubaab yi ba daane leen te bi mu bëri ñoom nangutu dugg ci biir nit ñi muy laal kenn damaa waxoon ne moom rayut kenn rayaluñ ko rayuñ rayut kenn rayuñ ko rayaluñ ko rayut leen rayalul leen kenn loolu Sëriñ Tuubaa rek ko mos a def mm. kon kenn du Sëriñ Tuubaa loolu nag nii ñu mobiliser muy taay Touba gi ak taay gi dëkk sëñ Touba ak réew mi yëpp daal ak ak bitim ak diaspora bi dañ cee kontaan kontaan koo xam ne bii sëñ Diop ñoom ñi Diop taay ak sëñ Fallou ñoom sëy ñi ñëw ñi moom euh, site bi mais dañoo bëggoon nii ngeen soññee woon man quoi soññee gi lu ñu war la ndax euh, alxuraan fi mu tàmbalee mooy foofu lañ bëggoon tàmbalee waxtaan wi sax yii dañ ko ci euh, defoon talxiis rek hmm. waaye ñuy wax ne alxuraan dafa ne bismillahi rahmaani rahim alif laam zalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqiin hudan lil muttaqiin hudan lil muttaqiin mooy lan mooy njub njub ñii ñu jub lañ te am nañ ci ñu yaakaar te yàlla buñ soppeeku waaye ñu jub lañ ndax mag gu ne mënta toog ci mag mag mu jàng fekkee lu bari ndax Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu waxoon na ne moom de yàlla may na ko dund na turam yi muy Omar ayen gi juróom-ñaar fukk la dund na juróom-ñaar fukki at min gi ñeent fukk la jàng na ñeent fukki téere téere xam nga ne juróom-ñaar téere boo ko jàngee di borom xam-xam mu ne raa raa gi ñaar ñaar téeméer la mu dox na ñaar téeméeri dëkk kon mu ne moo na am xam-xam kon gune gu jàng te yeewu gisu tuuti ay ndaw bu ñëwee di woote rek xam nga ci lañ ne lii mooy topp bakkan moo fi amoon ndax ñii fi ñëw liñ baaxoo 1960 ba tey bu man mii ganee guma àdduna daanaka ñaari at lañ ci teg ma ganee àdduna boobu ba tey ku fi ku fi mos a toog la ngay def mooy pexe moo jënd nit ñi man mi mooma ci tax a dugg nii ne naa ci wax man sama jëmm ji amul solo sama kaddu du dara waaye su fekkee ne dégg nga yonent bi sallallahu alayhi la ma waxoon dafa waxoon ne li an yahdiya bika allahu rajulan wahidan xayrun min dunya wa ma fiha mu ne nga jubbante kenn rek jubee ci yow mu ne moo gën àdduna ak li ci biir mu del wax ne li an li an yahdiya bika allahu rajulan wahidan xayrun min min xumuri naam mu ne kenn jubee ci yow moo la war a gënal coggalu gilim yu xonq yi gilim araab dafa bëggoon lool gilim mu ngi mel ni nga ne léegi maanaam giitu nag wala nga ne giitu gilim wala kat ay kat kat defal alal yi àdduna lu mu bëri bëri fexe ba kenn jiwee ci amoo gën nun nag loolu lañ doon jéem mooy gannaaw bu ñu Sëñ Tuubaa ñu nekk ci njabootu Sëñ Tuubaa doo ab soxna loo seexal ñu li ñuy def mooy fépp fu ñu gis loo xam ne mën nañ koo dimbale waa réew mi ndax réew mii nga dëkk lu seer la loo xam ne dañuy wax ne xabul watani minal iman ñu bëri wax nañ ne xadis la lu ma naan moom mooy dañu wax ne loo xam ne eh, loo xam ne boo ko boo ko déggee nangu ko xel nangu ko te xam ne dëgg la buñ ne yonent bi saa sax moo ko wax sax loolu moom euh, ñiy toppatoo xadis dañ naan loolu moom amul solo mën nañ ko jàpp rek ndax xubbul watani minal iman hmm. kon xadis la bëgg sa réew ci ci ci gëm yàlla la bokk ma ne kon njub googu mooy loo xam ne moom lañ bëgg mu sax ci réew mi ndax ñii kat nga xam ne ñoo ñëw indi seen procès wan ñu ko yàlla wane na leen ndax kii fi nekkoon muy suñu mag bii moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mujj gi jumte yi bëri na ndax jigéen dugg na ci muy daanaka ñoom eh, nit tubaab seen jabar ñaare da ciy da ciy bëri yu yu mën a yàq seen état mosoor day bëri lu ñu yàq bi mu fiy tokkat la Serigne Cheikh Gaynde Fatma waxoon yëpp moom firi na ko dafa waxoon ne eh, te lii sëñ Mbacke Mara mi mi nekk ci communauté bu tubaab bi eh, moo ko waxoon hmm. wax ne Serigne dafa waxoon Baye Fallou ñang suñu waajur la ñu ngi koy ñaan yàlla yokk yokk leeram te xare ko hmm. jege woon na sëñ ci bëkk néegam la bokk état major bi loon euh, gannaaw gi siñ si sëñ euh, Mbàkke la nekkoon ñëw benn bisu altine mu teel sëñ bi ne ko mbaa tey dee di altine mu ne ko waaw mu ne ko ndax day férié mu ne ko déet mu ne ko lu tax nga ñëw bis bi mu ne ko waaw waaye nag dañoo ñaan permission mu ne ko noonu la ndax kii fi nekk de euh, suñ digganteeg moom rataxul te bëgguma muy am buntu ci man di ko jaare ci yéen mu ne ko waaw Mbàkke kon xanaa da nga ñu ñaanal bon mu jógee fa mu ne ko dogal suñu borom suñu borom dogal na ko mu ne ko ah, kon xanaa da nga ñu ñaanal ki ci topp kon mel ni Abdou Diouf a ci topp da nga ñaan ki ciy topp bon mu nekk koo xam ne bon dana dana baax moom suñ seex ne cell ba mu yàgg ndax moom suñ borom ma na ko dama ne fii nit ñi di toll nii di dox nii ba ba ba àdduna di jeexat gëw ma ne nit ñi dañ jot seen seex ndax mën nañ ko laaj ne ko eh, occidentaux yi ndax africains yi dañ leen mos a jot mu ne cell ba mu yàgg ne xaju fi moom sax gëw ma nit ñi dañ ko jot te loolu boo boo ko wax pour ñu ñu ki nga xam ne dund na seen seex ay dégg-dégg rek la ci am man benn yoon laa ko gis benn yoon laa ko gis ñu toog ñu di ko soixante-dix-huit ku ci ku ci xam nga bu baax léegi fu ne nii ñeent fukki at yu tegal ñeent la defe naa kon boobu ay ndaw lañ ki nga xam ne dund nañu moom nag mu defar ñu samp ñu dégg nga euh, gëmloo suñu bopp ba xam ne ñun itam am na loo xam ne loolu moo ñu dugal ci ñu topp xale yi nga xam ne dañoo jaayante ni ma ko waxoon ci asaabul kahfi asaabul kahfi boobu sax su xatul dinaa leen leeral ñan lañ ndax tuddoon nañ ko fii te waxuñ ñan lañ hmm. loolu moom ñu ci dugal bu ko defee ba wax ne kon ndaw yi jub niñ ci góorgóorlu ci njub ni ko alxuraan waxee ba mu waxee rek alif lam mim kitaabi laa fi huddan lil muttaqiin dafa ne huddan njub ci woy ragal yàlla eh, cheikhul xadim xaaraloo laa maxtaaraloo dafa am benn bis eh, cheikh mamadul fadil mu ñaareelu takk ndeeram sëñ fàllu ni ko sëñ fàllu lañ ko gën a xamee ñëw ci moom di ko ab téere bu ñuy wax xaamuus xaamuus nag mooy dictionnaire dictionnaire boo xam ne day firi ay baat noonu sëñ bi noppi ba kii na ko na ko loo koy doyee dal far bàyyi laaj boobu dal di dugg ci biir jël xamus bi indi ko génne ko mu génne dal na ko seetal ma ci baatu xudaan mu génn ba mu dal di dal di ubbi rek yem ci ah loolu sax da ci am moom lañ ci mu ne ko ah, looy seet daal booba lii daal dénk naa la ko ndax lii rek di dara mooy njub njub daal bu amee lépp baax xam nga loola kon mën na ci buñ ko jëloon benn baat boobu ku me ku nekk mën na ko firi mu doon loo xam ne ñëpp dañ ko jëriñoo dégg nga euh, Cheikh Mamadou Moustapha euh, radiyallahu anhu moom itam nga xam ne mooy magu Cheikh Mamadou Fadil di premier xalifa Sëñ Tuubaa da daan wax ne man Mouhamadou Moustapha de Sëñ Tuubaa mooy suma woy juram di dégg naa ngërëmam waaye njuba ma doy kon nañ góorgóorlu ci njub ñii nag ñu jub ñoom njub gi moom bu ci bu ci yàlla bu ci dara tax waaye jub nañ ndax suñu leen doon topp ci loo xam ne dëgg lay doon konoon dañuy dem ci impôt demoon fañ nekkoon doon fa liggéey ñu topp leen ci wàllu alal waaye kenn ku li tax buur renseignement yi mu am ak ni mën a xamee su la toppul ci wàllu woowu nga xam ne la xam ci yow. bu la toppalee ci lu mu xamul ci yow. kon la xam nga ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay duur dong la ay sos dong la. kon loolu sant nañ ci yàlla ñu tàmbali foofu bismillah léegi moo wax ne Sëñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaraloo ba tey ci njub laay wax dafa wax ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi fastaxilu bil xifsi wa tilawa wattanibu majalisa shaqawa wa laazimo man laa salo aabida li rabbihi ilaa hudaahu xaahida fa kullu man baadara waxta chexari ilal huda saraha waxta kibari mu ne yéen ndaw yi ndaw yi laay waxal mu ne ndaw yi tasawudu chexaar am na tasawudu sibaan am tasawudu chexaar nag ci la sëñ waxee lii ne yéen ndaw ñi bu leen soxloo lu muy jub jub bu leen soxloo dara dara lu muy jub ku jubul mënu dara bant rek boo ko jëlee di ci liggéey dara bi nga fi ne dénk yi tubaab yi defar ni doo ci gis bu ndëng waaw ndax dañ koy dañ liggéey ko noo xam ndax bu dëngee du man dara lu dëng moom manu dara kon njub la ñuy tàmbalee suñ ci tàmbalee muy mu ne bu leen soxloo lu may njub ak xam-xam dégg nga mu ne na ngeen soxloo di jàng di tëri te wattandi ko jaaxa jataayu texaadi yént bi saw sam sax wax na loolu nee na jataay ñaar lañ jataay eh, maju saada ak maju saxawa mu ne jataayu texe mooy toog ak boroom xam-xam yeeg toog ak nit ñu baax ñeeg wax lu baax ak boo toog ak ñoom mu ne yaa ngi mel ni bàyyi yaa ngi mel ni ku jaay misk hmm. misk boo toogee ki jaay misk balaa nga fa bàyyeekoo ko romb rek mu ne ah yow sa parfum bi neexal na sax laaloo ko waa xeet gi dana la yóbbaale mu ne ki nga xam ne jotaayu texaat yi la nag mu ne mu ngi mel ni koo xam ne naafewul kiir boo demee ci ëpp ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy liggéey wàllu weñ ñuy tëgg weñ boo demee mbaar mi saxaar si yooyu noonu boo demee bàyyee fa fi ñu nii doo mën a waaj dem ci kii di fa ndax xeet gi mu ne noonu la jotaay lu bon dafa bëgg dafa wax ne lu bon boo ca nekkee boo ca waxut defoo ca dara itam bàkkaar dina la ci topp ndax dégg gi nga koy dégg ak xalaat gi nga koy xalaat ak ak ak boo demee nettaliwaat gàkk yeneen yi ci toppaat yëpp ki ko dégg sax moo gën a bon ki koy wax moo tax moo tax lu bon ëpp naa dégg moo tax moo waxoon fii ne alxuraan la mu waxoon bi bi affaire Sonko yi jógee man Sonko ku yàlla dimbali la nii suñ tubaab jëlee wàllu baatin wi daane buur yi daane eh, tubaab yi nga xam ne ñoo daane buur yi dem ba ànd ak ñoom dem ci àll bi bëri ñoom daane leen ba xam ne ñoom mënatuñu day ba ñëw di ko jégalu loolu mooy ndamal islam bi nga xam ne moo tax fii ci Sénégal ak si fii ci Afrique ñu mën a toog kenn ku ne laal sa kaala ñu ngi kaaloo ni sol mbaxana toog ne ñu ne sëriñ lañ ñu ni ab seex lañ loolu Sëriñ Tuubaa ko liggéey dégg nga moo wax ne waaye réew mi réew la moo xam ne day réew mu baax réew mi amul benn réew moo xam ne gën na ko dégg naa suñu wayjur Cheikh Ahmadou Tidiane te danaa ko faral di site ci muy suñu Cheikh Tidiane mu wax lu am solo ne Seydi Alaaji Maalik moo ko waxoon ne Màkka de ñooñu gën wéy ñooñu gën mag ñu njëkk waaye ñu leen gën mag ñu ne loolu dëgg la loolu loolu loolu sagesse bu am solo la ndax fu ne ni mag ñii fi ne suñ mag ñii kenn du ñoom ndax boo xoolee itam sëñ bi bi mu xamee ne dañ sangu kilifa yëpp yu fi ci réew mi bi ñu leen commencé sangu moom dafa dafa dem bëri ak ñoom xam ne duñ ko mënal dara ñu bëri ak ñoom ñu jël temps seen temps ci bëri ak bi te teroo ko taalif teroo ko jaamu yal teroo ko def dara te loolu yàlla ko programmé ndax néewut ci nit hmm. waaw néewut ci bu loolu amee nag ñi fi des nag ñoom sax seen góorgóorlu seen bëgg lu baax ñu góorgóorlu jàmm yàlla ba defar fi ñu baree bari bari bari kon foo xool rek mën naa ne kilomètre boo xool ci réew mi du weesu fukki kilomètre da nga fa ramb wëli yu fa tëdd woo xam ne suñ borom ruus na ko kon réew mi kuy jagal ci réew mi defe naa ne eh, mën nga caa doxee jag ndax defaru defaru ba defaru moo gën yàq bu yàq Cheikh Mamadou Moussa dana wax loolu ne mag ñi ne leen di defar di defar di xam nga lu muy jur ñu mën a xëy defaru rek mu ne di yàq di yàq xam nga lu muy lu muy jur mu ne ko day xëy rek borom day xëy rek yàq kon yenu ci yàlla musal bi waxee bi waxee yaayoo sibiyaanu boobu ba noppi bay bay ñaari bay yu njëkk yi dafa wax ne dafa ne eh, na ngeen taxoo nag kuy jaamu yàlla te digle jëmee ci lu baax gis nga kuy jaamu yàlla lu mu baax baax baax te du digle al amiroona bil maarufi wa nahuna al munkar ñooy gaa yu baax yi gannaaw boo gëmee yàlla ba pare lan nga mën a def lu baax mooy digle lu baax ak tere lu bon ñiy diglu lu baax di seere lu bon ñooy darajatul ula mooy ñuy daraja ju njëkk ji mooy li mu wax ne laazimo na ngeen taxaw man ña nga xam ne laay saalu man képp koo xam ne laay saalu abida day du dëgg dañ ci jaamu yal day jaamu yàlla rek dégg nga il xaayida muy muy woomaat nag nit ñi di leen jëme ilahu daaw jëmee ci njub mu ne nag fakku la man baadara waxta saxari koo xam ne njëkkante na waxtu ndaw ilahu daaw jëm ci njub nga doon ndaw ba pare fas kene jub dégg eh, kon istara waxtaan ki bari boo demee ba doon mag mooy mag mu yàlla teral mag mu noppalu waaye mag muy dang dang di sonn lu ne di bind ay journal di yàq mag ñi ci réew mi di yàq song nañ gune yii gune yi gune yi ñoom ñi nga xam ne mooy Jomaay ak ak président Ousmane ak président Jomaay ñaari président bi dootuñ gune ndax nit barki démb am na ko wax sax laata élection yi di wax naan day am ñu doon wax naan kii gune gu ndaw la nang ma ne leen suñ borom de mooy wax ne xata isa balax asuddaho balax arbayna sana képp ku am ñeent fukki at loo doonut feeñut ci yow doota ko doonut waaw ñeent fukki at Cheikh Mamadou Moustapha xilaafa gi gën a rëy ci ñu xam ko ñun mooy xilaafa gi gën a rëy yonent bi eh, kii a eh, Khadim xaaraloo la maxtaaraloo Cheikh Moustapha ñeent fukki at la ko wut kon ñen fukki at ko nit doonee lépp loo xam ne yenn nañ ko su ko yàlla jàppale man na ko yàlla nag mooy dimbali nit waaw kon yàlla moo mën a dimbali yéen yàlla dimbali ñu ma bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax moom ci suuratu Huud mu ne shayabani Huud Huud daal moo ma bijaaloo am ñu ne ko yow yow yow da ngaa bijjoo da ngaa jikiri bijjaam mu ree ne leen yàlla moo wax ak man ne fastaqim kama umirta wa man taaba maak yàlla daf ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na jub mu ne ko man Muhammad mu ne ko sallallahu na nga jub ak dégg nga ni la ko digalee ndax jub nga waaye bu ñu waxee dañuy wax ne xusoolu euh, maalami daaw mahasala ak ak ak ziyaada kaw comme mel ni bu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, fastaqim na nga jub moom Euh, dégg nga daaw ma la loolu mooy daaw ma xasala maanaam li am ba pare nga fexe yokkaat ko ndax moom du si mos a dañ ndax suñu borom dégg ngeen ci histoire ñu nettali ne bi mu gënee àdduna dafa génne si naaj Jibril ñëw na génn ci moom ci xolam raxas ko def na ko ñaari yoon ba ñetti yoon bi bi mu nekkee tout tànk ca xalibatu saadiya ca baadiya def nañ ko ko bi mu demee ko yónni def nañ ko bi ko bi ñu koy sol alxuraan defaat nañ ko bu dee ñaari yoon wala ñetti yoon def nañ ko kon loolu nga xam ne moom dañ ko préparé te yàlla loolu njub benn baat moo am solo ñun ñëpp nañ ci góorgóorlu tënku ci te mën naa ne waxtaan yi yëpp dañ ko cee dolli waaye baatu jub rek lañ soxla woon di ko andi muy huda dégg nga kon nañ ci góorgóorlu ci huda googu dégg nga dégg nga alxuraan ñëw na ci lu bare bari bari ba ci duggee rek li li li ngeen bëgg a laaj sax duñ ko mën a laaj kon ñu yem foofu yemale ni daal nañu góorgóorlu euh, li ci des mooy président bu fiy nekk dégg nga del jëllale tey jéggale dégg nga di bale di jëllale mooy boo romboon eh, romboon eh, benn benn télévision ma misaal mu daal ne masalan rek eh, exemple laay ni mu daal ne jomaay mi nanga nag ne mu ngi wax day reer rek romb ko xam nga am na doole macha allah mm-hmm. ndax président moom ko koo wax mu duma ndax kii fi newoon gis nga li taxoon ñun ñëpp ñu fippu tax ñun ñëpp ñu fi révolution bi nga xam ne mm-hmm. Sidi Lamine su ma waxee baat tubaab nag ngeen jéggal ma dina jàng ma tubaab mm-hmm. waaw révolution bi Sidi Lamine doon wax dégg nga xakib la boroom xam-xam la jagalkat la ku baaxoon la ci réew mi koo xam ne man day dem ba yàgg ma ñu nit tudd ko sax ma wax ci moom lu baax ndax euh, lu baax rek ci la naa te ku mos a toog fii jàppale na la dimbale la ba nga taxaw boo taxee mu bàyyil dem ci neen man noonu laa bëgg a ñoom ñii fi ne may itam mm-hmm. su ko defee kële jàppale nañ ko ci ñaan ak taxawook yu baree bari yoo xam ne du lu ñuy wax ci télé mm-hmm. am nañu ci xam dara mm-hmm. naa ba si Assane sama rakk mu ngi mu ngi ci armée li fii seex lañ Sëñ Jéeri moo ne Dakar Sëñ Assane moo nekk ci armée li fi nelaw na ba muy ànd ak génn kilifa ci ci ci ci ndakaaru ñuy ànd dem ci wanagu Macky Sall dem ak soxna saak yooyu ñuy dem di dem ak ñëw di di di ci état di def lu ne booba loo ñu bëggoon mooy dañoo gis ne moom mi suñu maase la ndax du ñu magee loo ëpp at kon ñoo maase. te itam li ma wax nii rek gune gu guñ defar moom daana mën ngaa bañ a doon gune kenn. su fekkee yàlla dogal da ñu ànd nag gis nañ ne li ñu naqaroon ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade wax naa ko keroog nee na mag mu am mag moo xam ne dem na ba moom moo mag Abdou Diouf war ngaa xam ne kooku mënta defar réew mi yàlla moo dogal rek eh, nii suñu Cheikh Gaïndé Fatma ni ma ko waxoon ko rek yàlla di mottali yéen ay Serigne Cheikh ndax Serigne Cheikh jëmm la joo xam ne da daan bañ bañ injustice bu baax a baax a baax baax ndax Senghor dem na ba ci dégool waxtaan ak moom ngir bëggoon maanaam fenn lu leen jubale ngir mu am fu mu jàppale Serigne Cheikh comme ni ñenn ñenn ñu bëri bëgg mooy maanaam président bi la jàppale say projet ak say say tool ak say am na sax benn usine bu Serigne Cheikh bëggoon a indi boo xam ne Senghor ko gàllankoor ndax ñaag gi mu ànd ànd ak moom hmm. Moustapha Lo yooyu moo ko naqari woon loolu na moo doon sëñ Cheikh bi mu demee di seeti Mamadou Dia mu ko fekk mu ngi toog di damee mu ne ani yéen ñi ku ci Mamadou Dia di seet Mamadou Dia seet ko ne benn kii rek euh, defe na article lañ koy wax benn mm. article la bind rek sëñ Cheikh sëñ Cheikh liir ko ne kii mu mel ni projet bi mel ni ah. projet euh, passé bi mu kii mën naa defar réew mi dem seeti jàppale ko yëkkati xaalis jox ko mm. ab dégg nga boo demee ci euh, kii ñu wax si Anta Diop savant bi moom it gis nga ku ñuy wax Babacar mbay boo ko déglu da nga dégg ne mu ngi wax ak Babacar Mbaye ci ndénkaane yoo xam ne yónnee na ko ci ku mel ni Macky Sall mi hmm. tuddoon turam waaye na mu ko waxoon rek nan la tolloo comme waxee na sëñ Cheikh bu ko defee kon yooyu yëpp ñu gisee ci ne eh, yàqutul jamono la waaye virage rek ñenn ñi dañ koy wax sax naan toll nañ ci virage boo xam ne loolu nañ ko waxee sax xamewuñu noonu virage bu métti la boo xam ne lii lu ne xajoon na ci ndax lii dem ba ñi bañoon ñoom ñi yor réew mi te bañoon dem ba nanguloo leen lii baatin dugg na ci mm. te kenn jiitu ci Cheikh Mamadou Mountakha mi mm. ndax ñu bari réeré nañ taxawaayam mm. waaye sutura ak kersa laam ak euh, doon nit ku baax waaye dama wax sama waa kër yi ne leen euh, ne damaa reen ne si Mountakha de koo xamoon ku yàlla macha allah macha allah macha allah doo tudd sax nit wax ci li mu baax la lépp waaye boo xoolee magam ji nga xam ne mooy sëñ Moussa Basirou barkeb doomi sëñ Tuubaa la yoroon am na ci xësiti sëñ Tuubaa ñoo xam ne barkeeb doomu Serigne ti lañ yor am na ñenn ci ñoom yàlla defar na leen moom ci la bokkoon barkeem ak mbaaxam ak mbiram joti woon na fu ne waaye loolu yëpp Serigne Mountakha dafa newoon ci ronam nangu kilifteef nee na sax moo ko nettali yal yàlla na ko yàgg a wax nee na am na sax kilifaam ku ko wax ne ko yow de Mbacke yow daal da mel ni ko bëggu dara mu ne ko li ma bëgg moo rëy moo tax xam nga loolu waaw kon war nga xam ne xeeb na ay président xeeb yu mel nii moom xeeb na ko te xam nga ne ki mën a dajale hmm. trente euh, euh, trente huit milliards la université bi hmm. yoo mën a dajale hmm. xam nga benn milliard ab Macky soxla woo ko waaye day nit ko am yërmande koo xam gis nga ñun ñëpp murid yëpp ci ku dem ba fa moom ree am jooju benn la ci hmm. ku ko jege ku ne da lay da da lay da lay dugal ci yërmande bu gisee ni itam su su su dëgg gëm war a wax xëy na bu ko bu ko defalee fàng dana bu waa waa ji itam dana doxee gannaaw botti ay njabootam ñoo xam ne loolu du ko gënalee noonu mën na nekk euh, maanaam ci yum ki woon waaye noppi wuroon ndax mu ci doon def ay médiation di ci def ay waxtaan di wax ak président di ci yónni ndaw di ci dox lépp kon mën naa ne kon euh, euh, kon lii am yëpp gannaaw yàlla grâce à Cheikh Mouhamadou Mountakha. Mhm. waaw ñu sant ñëpp itam nag ñi nga xam ne taxaw nañ ci euh, procès bi ak ni ñu ci doxalee woote yëpp waaw man ku ndaw laa ci rek waaye ñëpp ñu ngi leen ñu ngi sant ñëpp ndax ku def rek defal nga sa bopp. Mhm. kon nag gannaaw bu ñu ndaw yi jub ñoom jub ñu jub ñii ci liggéey ci lañ mën a liggéeyee ñi nga xam ne ñoo fi nekk itam ñu digal leen. ndax suñuy do suñuy jarbaat lañ suñuy jarbaat lañ suñuy taalibe lañ suñuy rakk lañ kon ñu digal leen lu baax lii ñu wane ak dëgg gii ñu wane dëgg rek moo am solo alxasanul basri yi dafa toogoon am ku ne ko ñëw ne ko da nga war a dal ci eh, xale yar leen ndax fu ne dañuy yarut dañu yarut fekk mu sóoni ko mu bëri alxasanul basri bi alxasanul basri xawliyal xabliyal wara wal insilaqa min xawaaye wal bina suñ tubaab di ko alxasanul basri nit yàlla ko mag la woon dund ñu ci duggoon rek mën na ci wax lu bëri mais dañoo bëgg euh, euh, dugaat ci beneen beneen phase euh, dafa toog ñu ne ko xale yi réew gune yi ni ñu def nangam nangam jibuñu defuñ na wax mu ne leen jóg sëndi ku toog ne leen déedéet bu leen wax loolu lu ngeen yaakaar ne loolu lañ leen war a jubantee ñu ne mu ne ko bi siyaat maanaam nañ leen yar caw leen mu ne déedéet duñ ko def bil dañ ko war a defee ci dëgg ak ci mandute dëgg ak mandute fu mu dem rek moom moomu dem na ba nga xam ne ci dañ dañ koy tuddee ne xaamisu xulafa rachidin te xulafa rachidin amul xaamis waaye moom dem na ba jamono mu surtout Seydina Omar ñu nangul ko loola def ko ko ne moom mii ndax mandu na comme xulafa rachidin yi fi toogoon te ñoom xam nga yàlla leen fàggu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne jamonoom ci lu gu gu daw jëmale ab gàtt moroom bi da nga ko ah buur bi kat kilifa gi kat dafa mandu nañ góorgóorlu mandu eh, lii nga gis agresseurs yii su ñuy góorgóorloo réew mi jàppale leen mën naa am agresseurs yii nga gis nii sax dootul bëri waaye li tax ñëpp fippu rek til yéeg nit ñeeg rab yéeg ñëpp boolo fippu di yàq ni loolu ci président ci buuru buuru bu réew lay ne moo wax la lii tey hmm. dégg nga ñu wax sax naan eh, ana ñu fi indi woon léeg nga dégg ñoo xam ne dañu wax ne dañuy àtte àttekat yi gis nga ni ñu dëggee hmm. ana kan moo xoolal saaba si fay bii ci ci ci Ziguinchor ak Ousmane dimbali ma ci waay Ousmane nakaati Ousmane congaan xaw ma nan hmm. Ousmane Racine Faye waa ñoom ñaar ñii mais gënuñoo jàng ñi ci des mais xam nga euh, Basir Basir kii la kii euh, Racine Racine Thiongaan Racine mi ne fële déedéet kii ne si la am euh, saaba si fay dafa taxoo nag nit ku baax kuy waaraate te digle lu baax di tere lu bon dégg nga muy muy muy sëñ kii moomu sëñ Mouhidine Samba Diallo yal na yàlla yokk leer moom nit ku baax la kilifa goo dégg mu siite rek lu baax la cee teg te kuy wax lu baax kenn gënu la baax waaw kon loolu moo ko xiir muy itam mu ragal yàlla waaye xam nga ne mënoon naa ut alale àdduna ba waxee neen Hmm. kii Racine mii ngay wax nii itam ñoom ñaar ñii rawuñ fi gënuñ fee jàng waaye ñoo fi gën a jub hmm. kenn ku taxaw ne ah man de man mënu caa wax yow yaa gën a jàng ñëpp ku am xam-xam bañ lay déglu del wax lu jubal nit ñi del wax lu dimbal nit ñi bu ñu jógee sonk kenn taxawal ñëpp jàpp loxol Macky Sall wañ ko ne ko bàyyil xale bi moom Ousmane bu ñu ko defoon mu bàyyi waaye ñoom ñoo doon fippu xoolal li ci dee ñenn kii imaam yi sax dañuy toog nga dégg leen ci bisu wala yooyu ñu taxaw di xutba naan ko ci dee dégg nga safara nga jëm ku ci dee safara nga loolu du wax bu rafet du wax ju jub waaw dégg nga hmm. ay ndaw yu jog maanaam maanaam eh, yonent bi sallallahu alayhi da ko wax alquran wax ko eh, mu ne ci tiir yi mooy su fekkee nit ki da ngeen toog di jaamu yàlla nit ñëw ne bu leen fi jaamu yàlla bu leen fi defee nangam song leen di leen dóor di leen rey ah bu baa yéen itam fippu leen hmm. waaw manifester moom Abdoulaye da sax wax na ko ne bi mu ñëwee dafa fekk ne ku ko daan def da ngay dem ñaan autorisation mu ne jëru ko ku bëgg def yéegi leen rek dem def ko mais xoolal ñi hmm. buñ wax ñu ne du am buñ demee ba ci biir lacrymogène yi jog fitna dal di jóg loola ñii ci réew mi ñoo jubutoon moo tax réew mi yëpp duñ mën a jub ku ne hmm. société boo dugg ger moo fi ne as suuftu mooy hmm. ger waaw ah euh, dégg nga yonent bi wax na fenn ne arrachi wal murtasha kulum fi naar del ne war arrachi wal war raichi li si si baynuma kulum fi nee na kiy ger ak ki muy ak ka dox diggante bi ba ger gi maanaam ñëpp safara la jëm fu ne koo gis mu taxaw boo ko joxee xaalis loo bëgg mu defal loolu loolu jaaduwul toog muy dox jaaduwul ñoom ñi fi ne nag man benn dénk rek laa leen ñaari dénk rek laa leen dénk benn bi mooy yal na yàlla sàmm leen te dimbali leen ba seytaane yii di jox di wax bëgguma tudd tuuru kenn waaye xam ngeen leen li ngeen ci xam sax xaw ma ko bëri na ci kilifa yo mag ñoo xam ne dañuy mag ak kilifa du benn bu déggee mag eh, wolof dañuy wax ne la wax du dëgg waaye lu la léebu dëgg la mm. daan wax naan mag mën naa ba ci ci réew am na ay mag yu taxaw am na mag fii yoo xam ne eh, lu may soññ Macky Sall ci li muy def ak lii muy def nii du xalaatam sax ñu bari ñoo ko xalaat noonu. waaw kon man ma mag mën naa ba ci biir déew. Hmm. kon nag loolu rek lañ ci doon wax ñu dig dénk leen yàlla jox leen xolub ñu mën a muñ mën a jégale mën a jëlale waaye nag nañ tegee ci dëgg dëgg gi mooy lan mooy ñii nga xam ne ñoo fi newoon te lekk alal yépp lu toog ci hmm. dégg nga ku ne la nga sax na ko gox. ñii la gafar gafar ña ko ku ne la nga toog nañ ko jël wañ ko nga yem ak baadoolo yi ndax lii révol révolution révolution bi Sidi Lamine waxoon. newul fu sori ñu bëri dañ ko waxoon waaye moom waxoon na quoi ñu bëri gisoon nañ waaw ah. opération gox yi boobu nañ ko taxawal ndax li wér mooy. Hmm. su fekkee da nga am sax njaboot nga jël kenn nga yori milliards yëkkati jox ko kenn rek ñu ci des léegi ñëpp doon ay noonam. Hmm. waaw réew mi ñi di dawal ay 4x4 ñii di dawal ngay dem ba yàgg naa man est ce que nu may def ba teg gis nga ñii ci géej gi nii ñoo leen ci xeer ñii ci géej gi ñoo hmm. leen ci xeer ndax buñ demee ba yëg ne ñun bi sa yaay ñëw ne ah, man de sa doom amul lu ma rekk tey nga nga ñëw ba ngoon nga ñëw ne ah, yaa ana reer bi ñu reer amu fi nangam mais loolu su fekkee ay BRT ak i ak i nu mu tuddati li ñu doon def nii saxaar gi. mais teer yooyu du dara mm-hmm. soo ñëwee yirif ay baadoo la nekk ci kaw danga nga war a wàcc ba ci suuf dégg nga waaye nga yaa ngi ci kaw ngay étage di dem. Ah. du noonu mm-hmm. da toog ci suuf nga seet ne fi ne sàkku ceeb lu muy jar ñeenti junne ak ñaar téeméer ci la taalee jëm kaw. mais loolu. Hmm? 92 saako ceeb danaan jar junni ñaar téeméer mais loola bañ demee kuñ bàyyi ba yàgg ne kii de na fi jógee ñu indi keneen keneen ki jàpp ne ndaw lii ñu fi indi muy Macky Sall dañ ko fi indi woon ngir mu defar nit ku baax la sax hmm. bonul ndax moom itam suñu mag la suñ kóllëre la lu baax hmm. rek la ñuy wax ci moom waaye hmm. ñu bëri ñoo xam ne dañuy toog toog muy dox la ñuy def ñoo xaar ba nga toog ñu ñëw fii di la di la di la sol ñu gune yi nag nañ moytu loolu ñoom kilifa yi fi nekk ni muy président Ousmane ak président Diomaye ñaareel bi itam nañ am yërmande yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii Macky Sall di def nii kenn mënalu ko dara kii di fëggu mag gii muy Sëriñ Mountakha ni ma wax lu wax na ko Mbàkke lu wax na ko mënalu ko dara hmm. waaye yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu ñu ñu moo ñu ko gën a xam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin hmm. yebaluma la lu mooy nga nekk yërmande ci jaam yàlla yërmande jooju jooju hmm. moom moom président Macky moom la waroon am su demee ba xam ne gis na diw nii ni nga ko ëppee doole boo yebalee gendarme CNC bip xaw ma nangam nangam policier xaw ma nangam yooyu yëpp armée bi yëpp nga yor ko jël ko gàcc ko ci kenn hmm. nga xam ne nag sëñ bi ni sëñ defoon doon dox ci kaw daane ñëpp di dox ci kaw bi ñëwee ci doxin suuf bi yàlla nga ko wane deux mille vingt quatre bii ñun moom lañ moom lañ gëmoon gisuñ dara xamuñ dara waaye gëm nañ ko ndax ni àdduna ci demee ba yëg ne su demee ba sës ci miir bi foog wàññeeku àddanaam wàññeeku bi moom lañ gisoon hmm. kilifa yi ko waxoon nii ma ko waxee sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waxoon na ko hmm. kon ñeenteelu président bi su jubul lay jubbanti réew mi ci moom lay soxe ko loolu sëñ Cheikh waxoon na ko te sëñ Eh, maa ngi nii toog te maa di dem. waaw eh, moo noonu lu ne ci man def naa ko ci moom. Hmm. kon foofu lañ ci bëgg a tënk daal. Hmm. dénk président bii nga xam ne moo fi nekk muy président Diomaye ak kilifaam gii di magam di xaritam di léppam muy Ousmane mi nga xam ne ñun kat eh, am na ñu commencé di leen ndax am na ñu wax ne Ousmane mii dafa war a dem toog bàyyi Diomaye mu liggéey loolu du wax. Hmm. Ousmane moo boot Diomaye xuus ak moom ci biir géej dégg nga li tànk yaag jëmu jaag boobaak yëpp Ousmane. waaw moom tënkoon ko génn moom ci biti. waaw mais ni mbër moo xam ne da nga ñëwoon di bëri moom mu tunqum la daan daan bi ba wàcce la yow ci cumeekaay li mooy mooy diggante Ousmane ak Diomaye mm. ndax fitna bi eh, ba netti naa ko ci wala yoon bi ñuy wax ay ndeeju liggéey may leen ah. ndeeju liggéey tuuti la ci dégg nga ñaan lenn la ci dégg nga ndax Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ñett mooy tax mooy tax nga mucc mm-hmm. mooy mooy saraxe dégg nga ñeent la nee ñett yi nag la nit xam mooy saraxe mm-hmm. ak ñaan ak moytu xusoo hisrakum mu ngi ci alxuraan la ah saraxe xam nga ci alxuraan ah xus min amwaali sadaqatan bëri na bëri na ci alxuraan dégg nga ñaan doa mul xoyn abado doa silaal moomin hmm. eh, muy ñett yooyu hmm. beneen bi ci des Sëriñ Tuubaa moo ne boo demee ba yooyu jël lañ jël te ba mu jeex te manuñ manuñ manuñ maanaam attanuñ ko la ca am kilifa gu mat kilifa te jëfe ndigal moo ci des mooy suñ kilifa yi ñu am nii fii ñu toll ni diina ji lépp lu fi baax mag ñaan nañ ko teg nañ fi kilifa yu mat kilifa yu baax yoo xam ne ñoom ñii itam lañ leen di fenqale naan gëmuñ ñi gëmuñ loolu amul président benn bi fu a toog ñu ne kii de julli xaqar la muy taxaw ju mën a taxaw naafe la nii Ousmane man ni gisaguma ko fi waxuma ne amul fi waaye gisuma ko ndax man ñi fi ne ku ne xam naa laay Senghor xam nga ne moom duutoon ab jullit chrétien la président euh, Abdou Diouf bi loon ndax su ma ndeysaan yàlla dafa xirun sama baay bëgg ko loolu laa euh, bi bi gars yi di ko saboté naan la dafa dem ba ci jumaa ji mu julli benn raaka toog mooy moom itam lii du wàllam fexe ba dimbale ni ñi mooy wàllam moom wàll yu baax yu bari mane na ko day ti alquran di jàng ñëpp di ko dégg mm. mu fasiroon di ko dégg muy firi di wax ñu eh, ulama yi di ko dégg dégg nga eh, dégg nga yi di ko dégg kon xam na ne kii moom su fàggutee fi suñu borom la kon nag moom itam na jëm a gën a góorgóorlu ñun ñëpp ñu jàppale ko li ñu wax nag ne ñoom ñett lañ fi indi ñett yooyu ci laay tàmbalee suñu waxtaan ñett yi mooy eh, jub mooy jomaay bi jub bi ak jubanti ak jubal loolu nañ ci gën a góorgóorlu mm. te it buñ ci wut xarit buñ ci wut lenn képp koo xam ne war nañ laa teg ci yoon nañ la teg ci yoon ni yoo xam ne buñ ci indee ci wàllu woowu itam day guddaate da ngeen bëgg laaj ay laaj yu ñu bëgg ñu waxtaan ci ah, waaye nag la imaam Malik waxoon ne suñ ma laajal lu ma xamul du ma rusoo wax ne xaw ma hmm. ah dégg kon nag luñ ma laaja may lu ma xamul du ma rusoo wax ne xaw ma ndax ñu ñi ci biir ay dongo la mais am seen mag kon mën naa caa mën naa caa yeete dara waaw ah, loolu rek la kon nag aqulu qawli haza wa astaghfirullahi li wa lakum wali saayir muslimin wasalaamaaleykum wa rahmatulah. du nuyu bokk taayif yëpp nag. waaw waaw jërëjëf waaw teg ko jóg ñi. ok jërëjëf. waaw ah, parce que taayif bi. ñu ngi leen di nuyu di ziara parce que yëpp yëpp fu ñu mën a ne ci àdduna ci. nañ ko mujj sëñ bi nañ ko mujjee. waaw bisimilah eh, jërëjëf eh, sëñ Babacar Ndiaye xaadimul xaadim. Mm-hmm. damay ñëw rek ci première question bu ma bëgg bu ma bëgg a am par rapport ak li nga doon wax léegi. Mm-hmm. Eh, fekke nga ci ci nguuru Senghor. Mm-hmm. nga aussi tamit ci Abdoulaye Wade ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf ba ci makisal mhm. mais mais euh, dañ la gis nga wax ci diggante boo xam ne mhm. daanaka ñi ñeme woon a wax bariwut mhm. bari na ñoo xam ne dañuy génn wax seen opinion ñu jàpp leen yeneen ak yeneen nga jël engagement wax ngir defendre ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko projet bi ban différence nga gis ne régime yi fi jot a ci mel ni Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky am ak euh, ki nga xam ne moom nga jóg ngir gis ne bu toogee ci réew mi dina gën a dina gën a baax mm. maanaam boñ ci doon indil eh, ab jàngat ci ci ci ci ñeenti régime yooyu mm. différence bu am ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko waaw mm. waaw jërëjëf sëñ Fallou ñu sëñ Fallou Seye ñoom ñu moom site bi muy ah IYAT TV waaw muy IYAT kon ñëpp nañ ko jàpp li nga xam ne moo ci nekk mooy dafa mel ni dëkk boo xam ne dañ ko sos ku ñëw rek maanaam ñoom bu ñuy campagne dañ digee ne Mm. waaye sën nga bu ñu noppee dañuy fàtte ñëpp nekk seen bopp seen bopp rek la ñu nekk mm. bu ñu nekkee seen bopp sax te am yërmande hmm? yërmande yi ëppante nañ ndax bi ñëwee ci jamono Senghor gis naa na naa mm. euh, sama beneen sama beneen wayjur bu baax bu nekk Kaolack ñu koy wax euh, Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima di moom itam nit ku baax koo xam ne fonk naa ko loolu ndax da doon bañkat te daa ànd ak seen Cheikh Gaynde Fatma di dox yu mel noonu yu bari Eh, mu wax ne ñu wax ne dafa dem benn bis woo Senghor ndax jubóoloon ak Senghor ne ko dama laa soxla. mu dem mu mu kontaan ci lool recevoir ko mu ne ko Cheikh Tidiane mii hmm. si bii fayo ba ndax sëñ Babacar si moo la jàppale woon moo ko sëñ Fallou daal di sëñ Babacar si ci ña la jàppale woon ci la bokk. Hmm. Senghor daal di ree daal di ko jox loxo ko si ne ko ñaas mu ne ko danaa ko bàyyi daal di ko bàyyi. Hmm. am dégg-dégg yu ñu am donte yàq-yàq yi amoon nañ bi ba ci Abdou Diouf moom itam Abdou Diouf itam eh, gisoon nañ ne xam nga Senghor mën naa sax ñëwaat ci suñu dëkk bi muy du Mamadou Fadil gis nga nit nettali na ma koo xam ne moo ñoo toog di reer lii nag yàgg na muy ku ñuy wax Mor Wade boo xamee maram ak biraan la daan def ci RTS bu hmm. xel mu rëy du du bu mujj bii nag lii ma lay wax ni hmm. dafa xaw a yàgg ay ñeent fukki at ak nangam ci moo xam ne ànd naag ànd naag Pierre Senghor muy mag Senghor hmm. moo nekkoon Bambey boo demee teen ba ci rond-point booba foofu la Pierre Senghor dëkkoon nee na mu mu mu mu mu jàppale beneen kilifa dóor geno nag ñu caaw moom père Sangar mu père Sangar mbécc mu dóor ko geno nag hmm. ñëpp ne ko bu bu bu jant fenk Sangar dana tëj mu ne lu ci dem ci Sëñ Fallu mu daal di daw ñëw Tuubaa bi mu ne ba yegg si moo ma ko hmm. ñaari mag ñuy reer kenn kenn kenn kaa ngi fi des yàlla nañu fi yàgg hmm. mu ne bi mu toogee ñu ne ana a Fallu ñu fàtt na ah, kon de moo gisul du baax mu ne Sëñ Fallu ah, kon de gisuma bon mu ne mu ko ah li mba jàmm la mu ne ko man de damaa dóor magi Sangar te wax ne bu bër setee fu jant fenkee huit heures jotee rek dem na kaso te dañu ne yow rek ci man dara mu ne mu ne daal nit ñi mu ne dafa tibb cere jox ko waaye waaye jamono jamono dal dogu dogum yooyu ba noppi daal ne kaay toog mu toog mu ne ci guddi gi la suñ fal na kar téléphoné si noonu si nga loola am na solo nañ ci góorgóorlu kilifa yëpp yëpp buñ ci ñun ñuy tuuti nii bu sax buñ ci xeeb suñ bopp ñëpp ñëpp nañ booloo di jàppale ñii ci wax dëgg ak wax leen dëgg waaw fu ne nii wax dëgg lu mën a jur jàmm rek lay jur dëgg lu lor mukk mu ne bi mu ko waxee wax ko Senghor ne ko Mbàkke mu ko du am du am benn problème mu ne ko bëgg naa daal buñ ko tëj te bu ci wax mu bu soobee yàlla jeex na ba mu xëyee Senghor Pierre Senghor dem ci Senghor wax nañ ko tëj wax mu ne ko ah, Alaaji Fàllu woo na ma ci guddi na ma ko gaan di nga Senghor a ngi noonu sëñ Fàllu ngi noonu sëñ Seex a ngi noonu yooyu ñooñu la ñoo fi nekkoon ñu kon nag ah niñ góorgóorlu rek jàppale ñu fi ne léegi nag moo wax la loolu nag bi ñëwee régime boobu euh, Senghor na dégg Abdoulaye Wade ku ñemewoon koo la ku ñemen ko ñaan sëñ bi sëñ Mbàkke Maamin mi ñaan na ko ci diggante mu ak Idrissa mu baaxal ko eh, a Alaaji Baara Fàllalu yéen yàlla yokk seen leer ñaan na ko eh, moom moo tax Macky Sall mi doon président waaw Ousmane Ngom ak yeneen yëpp daanaka sëñ sëñ sëñ Mohamed mu inter eh, ki ki médiateur la boo xam ne yu mel noonu day taal otom dem gis président bi wax ko mos na dem gis gis Abdou Diouf wax ko ne ko dama laa soxla suba mu ne ko ah loolu kay da ko sama seex ñoom maase woon ñoom ñaar sëñ sëñ sëñ Mohamed ak Abdou Diouf ñoom maase woon mu mu ñëw ni ko yow bu ma soxlaalul kay neen maa ngi ñëw mu ko déedéet waaye ni ngay doxee damay ñaan audience comme ñëpp mu ne ko may la suba ñëw toog ko ñaar mooy diggante eh, Charlie Ben Sidi ñi nekkoon Algérie gi te Senghor nekkoon fi jullit ak eh, jullit ak yéefar moo fi nekkoon chrétien ak jullit ñoo fi nekkoon seen nooneel gi bul ko doon nooneel duñ ko doon moom sëñ Mohamed mi mu wax ko Abdou ko dëgg la mu ne ko ñaareel bi dama bëgg nga tànn ma ma nekk sa conseiller boo xam ne dégg mu ne kay doon nga ko mag mën ko déedéet xaaral man mi la ko wax dafa am ci lu ma koy aj mooy bis bu ma la waxee loo xam ne sama intérêt la boo ko def mun a mu Abdou Diouf teg gi nga dim dalee dëgg mu nii xool ko mu ne ko dama ne bu ma la santee dara dara loo xam ne mbàkkee la wala man la bu ko def damaa bañ nga juum rek te buñ la daa ñëwaat dootuñ la ñemee waxati loolee moo baax nag ci kilifa ndax lii ñu dal ci suñu kilifa gi fi jàll bu mu ñu dal ci suñu kilifa yi fi ndaw yi fi nekk nii kon loola moo fi ne bi Macky Sall ñëwee nag dafa gën a garaaw nag dem ba yegg fii foo xam ne Euh, suñ bi kenn mosu koo gis ko wax ñu tëj la boo xam ñu ne appel à l'exécution xamu nu ñu koy waxee si nga yooyu ñuy wax moom la tubaab yi jàppoon ba ba téye ci suñ tubaab te mënaluñ ko dara loolu lañ doon wax bi ñu koy waxee nii suñ toogee ne dégg nga ñu toog ne procureur procureur ak ñun ñëpp bi ñu toogee tey mënuñoo fipp tey wax wax Macky Sall dëgg kon war ngeen a xam ne réew mi toll dafoo xam ne fu réew di toll ci bon ak yàqu fi réew yi daan toll nit ñi di rayante guerre civile am fa réew mi toll na fi waaye dafa am loo xam ne yàlla rus na ko mooy jëmm joo xam ne jàmm na yàlla ba am ngërëmal yàlla toog ci biir suuf te bëri na ci benn ci ki ji ci tay wax na am na ngërëmal ko waxee Sëñ Tuubaa xam nga waxaale wuñ ko moom ak doomi Sëñ Tuubaa jën doomi Sëñ Tuubaa ju amul ngërëm amul surtout Sëñ ñu baree bari ci ñoom am nañ ngërëmal yàlla ba ci siñ Maamen mi ci tay nga dem xoolal réew mi kilifa yu baax yi fi ne jaamu yàlla jaamu yàlla di toog di jaamu yàlla di taxaw di jaamu yàlla di jonkoon di jaamu yàlla bu ñu fi jógee yàlla ruus leen lawlaa difaaw laahu naas ba'dahum ba'dan la fasadat al-ard yàlla waxoon na ne waxoon na ne su fekkoon ne du ñenn laay rusee ñi ci des mu ne ma tas suuf ndax li may def naqar na ma yow yàlla doo yàlla yow yàlla sa jabar yàlla sa doom xam nga loolu naqari na ne waaye dafa am ñu may rus dégg na ko fen lawlaa laa laahu naas ba'dahum ba'dan lahuddimat sawaami'u wa biya'un wa salawaatun wa masaajida yuzkaru fiihaa ismullaah dégg nga daal ne wala yansuranallahu man yansura inna laa qawiyyun aziz yàlla ne yàlla dana dimbale ku koy jéem a dimbale ku jóg di dimbale jéem a dimbale yàlla dimbale yàlla ñu dimbale waaye Macky Sall mii lu ne façon ko ci réew mi te suñ mag la suñ xarit la suñ kóllëre la nit ku baax la waaye ñi lay wër entourage Serigne Cheikh Sey Tidiane si Tiwaawoon ma delluwaat fa dafa wax ne eh, bu buur ñëwee ne ànd ak yow ne ko dama laa laaj sa entourage sa entourage dégg nga mm. ne entourage ñu am solo ci nit lañ entourage am ñoo ko yàqal Mm. sa jabar jogaat ci ñu ne jabar ji première dame lu ne nga dugg ci dugg ci na nga xëccal ki nangam loolu seen jabar ñoom ñu nañ leen ci génne seen mag laa kat di seen baay di seen nijaay di seen kilifa war naa leen digal digal naa leen loolu te yaaka am yaakaar tax ci ñoom ma dog woon ci ne dañuy gañe ndax li wér mooy am na kilifa yu bëri yu ma ci bitim réew ne ma ah su fekkee lii amul de kerse danaa ma ne ko dafa am benn xisa mën naa sax daanee sa tontu bi ci loolu mm. dafa am benn dëkk ñaari kilifa nekk fa ñiy kilifa ak dëkk bi ne baax nga ñu ne ñaar ñi daal nañ seet kenn jaayante ci moom ñu ne nañ leen nattu nañ jël benn xar mu weex takkal ko téere boo xam dugal ko ci néeg su ko defee bu ñu ko dugalee ci néeg bi woo leen ñu ñëw ñu baax na ñu def ko kenn xamut ci ne xar mu nu mel bi ñu wooyee wëli yi yi ñëw ñu ne ko néeg bi dañ fi def am xar nu mel mu xool ko gis xar mi ni wilaaya la am xool gis xar mi nii neen xar mu ñuul xar mu weex a fi ne mu takk téere bu xonk ñu xoolante xam ne wax na dëgg ñu woo euh, euh, borom ngërëm gi nga xam ne dafa tarbiyu bañ gërëm ko dégg nga waaye du wëli yu mu ñu toog ñu wax ko mu ne xar mu ñuul a fi ne mu takk téer bu xonk salaaw ñu génne xar mi mu ñuul xar mi ñuul hmm. gis nga li ma yi wax nii de lii moon na ci réew mi hmm. ngërëm yi nit ñu nañ ko wuti te topp kilifa yi ak way jur yi te sonn ci ñoom bi nga moom jomaay ak Ousmane ñoom ñëpp bu ñuy nettali seen jaar jaar li defal sama yaay li ma defal nag donte góoree lañ ñi ci wax waaye da nga ci gisee lii ay yoonu yoonu doxukaay la hmm. xàqlu wàlida yi koo xam ne dafa dënge ñaari way juram du do dara du mën a taxaw fenn fu mu taxaw lu mu sémb yàlla tas ko waaye way jur bu ñu la gërëmee ridallahi fi ridal walidayni faman ataahuma faqad atalla waman asahuma ñaari way jur buñ la gërëmee yàlla gërëm la buñ la mooy yàlla loolu it ma dolli ko ndaw yi ñu góorgóorlu ci way jur yi ci ñoom dégg nga yonent ibrahima kat gis nga ne dégg nga inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikiin shaakiran li an'umihi ajtabahu wa hadahu ila siraatin mustaqim wa aataynaahu fi dunya hasanatan wa innahu fil aaxirati lamina saalihiin summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan na ci lu bëri damay koy tënk ndax li ko yàlla waxal lu bari la moom Ibrahima daal di ne eh, nii la mel nii la mel nii daal moo tax ma ne yonent bi topp ko toppal ngir Ibrahima ndax lu sell la hmm. da doon asar da doon koo xam ne moo doon bëkk nii néegu Namrud ba pare di yett ay xeram bi Namrud bëggee rey Ibrahima mu ñëwee ko ne ko bul ko rey mu ne ko sa doom ji dafa maa wéet mu ne ko waaye da ngay bàyyi moom nag dafa am lu ko yàlla defal mu ne ko moom ku dégg woy suma ndigal mu ne ko ah mu ne bi hmm. Namrud Kanaan déglu ko mu ne ko fu ne lu ma ko digal su ma ko doon na ñëw raam sa tànk yi di bës sa tànk yi dana ko def mu ne ko kon déglu naa la ci nga wax ak moom ma ko rey bi bàyyam ñëwee na ko léegi ne ko léegi man waxuma xërëm yi ma yett rek sax waaye moom moo koy dem di jaay te su ko santee day dem waaye day def contre publicité bu ñëwee day naan man yasari man laa yadul ko wala yan ko ba ngoon du jaay benn waaye maslaa na ca kon kilifa jox bu sama kilifa gi du laa naa bul gaaw a def loolu bu nee yoo xam ne du noonu te nga maslaa ca te doxee ci teggiin te may ko teggi ndax yàlla moo la wax boole la ak ñoom te way jur euh, wasay naa insaana bi waalidayhi yàlla dénk yàlla ndénkaane la yàlla mu dénk ko suñuy way jur bu ko defee nag kon loolu ñu tënk lool kon defe naa tontu bi loolu bi ñëwee nee naa la ba ñii ñoom wëlbati am na wëlbati ko am na dëgg ñëw na mm-hmm. yaakaar ñëw na njub ñëw na njub nag ak dëgg bu amee ñoom la leen dese dégg nga mooy ñu ñu ñu am kilifa yu leen yu leen di waxal ñu dégg Hmm. loolaa leen dese ñoom waaye ñoom fii ñu tol nii hmm. macha allah fa tabarka taw bi taw na ndax bi bi ñu suba la ñu war gis nga taw na taw bi taw na ci hmm. bu jot na eh, ji nañ am nañ yaakaar mu gàncax gi di rafet di dox ah, kon yaakaar rek jullit yaakaar rek la am waaye fi ne li daal mooy jëm gëm nañ ne waxe seen Cheikh jooja jot si na jëm leen ñaani mag ñi ak ñu baax ñi ak liggéeyub Sëriñ Tuubaa xaari xaari loolu la waxtaanoo loo yàlla du ko yàlla du ko suul yàlla dana ko taxawal kon yaakaar jooju ñu mi nañ ci góorgóorlu ba yaakaar ji mu tax euh, victoire bi nga xam ne am na barki démb mm-hmm. bari na ñoo xam ne wax nga ko sa wax am na ñuy wax naan mm-hmm. ñi gëmuñu sëriñ si mm-hmm. ñi ay salafiste lañ ñi lii lañ ñi laa lañ mais dëkki euh, dëkki diine yëpp ñoom dañ faa gañe massivement seen ndam loolu ndaka nga ko jàngatee waaw loolu loolu loolu mooy li ma la wax ne fu ne gune yi ah. ndaw yi ñoo jot ah. euh, bi ma waxee ne ndaw yi ndaw yi su su baax ndaw yi baax ndaw yi baax nañ alhamdulilahi rabbil alamin ah. ndaw yi ndax jóg nañ fippu ah. seeni kilifa ku ci seeni kilifa jàppale leen ci kilifa yi ba fi ne nii ñi dem di yóbbu ay maloto xaalis di yóbbu yeneen ñu leen xam xam nañ ne ñun ñëpp xam nañ ne fi ñu toll nii eh, tey jii daanu nañ ah. kon tey di wax naan kii taalibe bi diw la ki xam nga benn Sonko ah. euh, taalibe murit bu wér la waaye ku nar a lii yëpp doo toog foo toog naan sama bopp sama bopp loolu la ñu anaan yu mhm. waaw sama sëriñ sama bopp sama sëriñ loolu duñ ko wax te amul solo nag li am solo mooy kenn ku fi mas a toog ci réew mi fii ñu ne muri saadix la ndax gis nga ko Senghor moom chrétien la woon noppal na nit ñi mi ko sëñ Tuubaa wax ndóbin bi mm. eh, dégg nga ki nga xam ne mooy pantet bi mooy mooy kii bi mooy eh, kii naat bi mooy Abdou Diouf mm. jabaram chrétien la kon xam nga moom Abdoulaye la tudd waaye xam nga moom itam xam nga foofu rek lañ ne mm. lii ñuy soxla ci réew mi du ay yooyu murid saadix yi eh, ñu ngi ci seen ca xasaayit yi ah ñu ngi ci kurus yi ñu ngi ci ñaan yi ñu ngi ci taxaw ñu ngi ci fipp ñu ngi ci bañ ñu ngi ci yu noonu dégg nga du wàllu taalibe du laa wala ni ni ni nii laa demee wala nangam nangam wala yu mel noonu te ñoom kenn xamalu leen dara ay salafis ay nangam nangam yëpp yégal ne yet la wuñ jël di ko dóoree eh, ñoom ñooñu di dem waaye duut loo xam ne jàll na tey jii yàlla bañ na ko ndax yàlla rek mooy dëgg kon loolu moom ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàll ci weneen xat parce na continuer si ñoom waaw. bu yi ñëwee ci Bassirou Diomaye nga xam ne Ousmane Sonko moo ko fal. Hmm. am ñoo xam ne. ba léegi amuñu confiance jàpp nañ ne nguur ak euh, ni muy doxee mën na am beneen entourage mën na am ñeneen ñu koy conseiller ba diggante ak Ousmane Sonko dootul neex yu mel noonu. Mm-hmm. ndax am nga ci gis-gis boobu. yaakaaruñ nag nit ñi mën cee xaj ndax dañoo waajal seen bopp ci lu mel noonu. waaw ah. dégg nga Bassirou Diomaye. président le président de la république monsieur Bassirou Diomaye. Ah. ndax. Eh, président kenn du ko saalal hmm. sëriñ kenn du ko saal buur kenn ko saal man mii tuuti naa sax waaye dañ maa seex ndax ak dañ seexal kon noonu la monsieur monsieur le président hmm. fooguñu ko ci moom ndax eh, ñaar ñaari ñaari ñaari askan eh, séentu woon nañ ci démb ñoom ne bu ñuy dee sax dañ dee ci ngor mooy séeréer ak jola kon loolu benn hmm. te seen i maam seen maam benn nit a leen juróon ñoom ñoo ko gën a xam te bàyyi xalo xel loolu te seen i jur yaa ngi dund di leen dégg te duñu leen seetaan ah. seen i nijaay seen i sëriñ leen seetaan ñaare bi dollu ci itam dégg nga dégg li mu wax ne moom Basirou nee na ko su politique doon yàq suma diggante yow duñu ànd kon duma dugg ci politique bii ndax tuddee na la doom joo xam ne dama bëgg waxtu wu ne ma di la ko féetale te loolee tuddee gi ma la ko tuddee du ma dem ba mu yàgg ma récc ko hmm. kon defe naa ñoom loola te doom moo gën a diis nguur ndax nguur gi duñ ko yenu lu ëpp fukki at ndax boo demoon ba juróomi at yi jeex suñu la tabaatee boo ca tegaatee juróomi at da ngay da ngay génn sa morom jël kon loola ñoom Euh, ni ñuy waxee gisuma ci ñoom matadi gu toll ni euh, mag ñi seytaane ñii di yàq xis hmm? bu seytaane ñii di man leen a jàpp gisuma ko ci ñoom kon gëm naa ne lu ma gëm la rek ne ñoom lañ war a xam xam nañ ko lañ war ndax ko am ñeent fukki at rek loo war a doon doon ko kon hmm. jàpp ma ne kenn mën naa dox seen diggante hmm. jërëjëf bi ni mu doon doxee ñoom eh, ay nit lañ ñoo xam ne dañoo yàgg a dund injustice ñu bari jàpp nañ ne buñ jotee ci nguur gi eh, ay fayeeku mën naa am hmm. wala ay yeneen procédure yoo xam ne hmm. dina am ndax yow jàpp nga ne ñoom dañoo war a continuer ci lancé boobu hmm. comme li ñu naan sas aux sorcières xool ñi nga xam ne ñoom ñoo leen daan teg fi ne ñu teg leen ko wala tamit euh, dañu war a def li nga xam ne moom mooy ñi jël alalu réew mi ñu delloosi ko li nga xam ne man moo ci ndigal lu ma leen conseil bu ma leen di jox mooy nañ jéggale ak jéllale ak bale ci mooy jëmm ji xam ne Adji Sarr naa ko tudd rek comme laaj nga lool tooñ na Ousmane tooñ goo xam ne eh, boo xoolee jëmm ji ñuy wax eh, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ku ñu wax ab ah, safaanu eh, mu attal safaanu mu attal nii boo ko bind sax ni bi du lakk. Ah. te dafa am ku ñu wax Abdullah ibnu Ubay dafa tuumaaloon ne kii dafa seq dara ak soxna yénti muy sayyidatuna Aïsa ah. moom laa doon wax ke rek ne alxuraan day wax ne law laay samaytumo zanal mu'minuuna mu'minaati bi anfusihim xayran wa qaalu bi dafa indi waaw ne wala walaay samaytumo qultu maa yakunu lanaa an natakallama bi haza subhaanaka haza buhtaanun aziim ah waaw si moom moom la amoon muy sayyidatuna Aysa ka ko waxoon Abdullah ibnu Ubay dégg nga bi yàlla dogalee yooyu yëpp jàlla boko ko yaa ba ko yontu bi sax alayhi wasallam nga xam ne door nañ ñi ñi ci waxoon ñëpp moom kilifa lu muñ ko dóor bi mu faatoo yontu bi sallallahu alayhi dafa ñëw mu yónni doomam ne ko na ko na ko may mbubbam mu may ko jil li ñuy wax malto mu ne ko bëgguma bii bi bi bi bi méng sa yaram mooy mooy ko jilbaab jàllaabe bi muy jiital teg ci ah. malto bi nga xam ne ñàkk yontu bi saa sam mu ngi ci pour ñu góorgóorlu xam ne laaxoo kilifa boo néew ci njub du baax njub rek baax ah. bañ demee ba mu nelaw ñu xar jàllaabe bi sàngee ko ko yontu bi saa sala sallallahu alayhi bi alihi wa wax wa mi taxaw jullee ko yàlla bañ wala tusali ala ahadi minhum maata abadan wala ma yàlla dafa mer sax bi ñu koy waxee dafa mel ni ku mer kuy wax wala tusali bul mos a ala addin ci kenn mi min euh, minu maata aban koo xam ne faatu na abadan faw bu ko mos a def wala taxuma laa xabri ñëw bul taxaw sax ci bàmmeelam ñëw dégg nga ci Seydina Omar dafa ñëw taxaw ci diggante mu ne Omar randu randu randu da daan maslaa ndax euh, jikko yu rafet yi dëgg-dëgg day ànd ak kersa yént bi ku mat la mat gi mat Seydina Omar mateewul noonu waaye baax na hmm. waaye lañ gis nga jumaay mi lu nit mos a def sonko président jumaay lu nit mos a def président sonko da koy métti ba xam ne moo sonko koy gën a dal loolu mooy xam soppe fu hmm. ne ni sëñ Abdou Khadre mi ba bëggee def dara fu ne nii mën naa sax moom bu dal sa kaw du ma ko yëg waaw dégg nga mm. eh, Sidna Omar bañ ne ko bu julee si yonent bi sa sa xale yaa Omar xale yaa Omar Omar randul randul dégg nga Sidna Omar gedd yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mm. la yàlla ak alkane bu ne mënoon na ko caa daal su fekkoon ne ci dëgg waaye na ko nii ñu la def man neexuma kii doo ko julee ma ne fi gedd ba mu geddee yàlla daal di wàcc wala tusalli bul mos a julee ala adamin mata abadan wala tax na afri inna kafaru billahi wa rasulihi mata fasiqun faatu nañ dégg widdi nañ yàlla widdu yonent bi te ci faasix lañ faatoo giinu topp lañ faatoo sëy yonent bi dafa dem ba ci Omar jox na ko na ko al haqqu maaka yaa Omar yàlla dëgg yàlla ànd naa yow te loolu juróom-ñetti yoon am na te yonent bi day maslaa ci dara ndax jikkoom bu rafet Seydina Omar bañ loola dégg nga kon defe naa loolu laa loolu laa ci su ma fàttali nga fàttali ma du noonu waaw si si si waaw ndax ñoom dinañ topp nii waaw naa léegi ndax danañ topp nit ñi eh, man digal naa leen samay rak digal naa leen samay jarbaat nañ jéggal ñu baal ñëpp ku ne luñ la waxoon hmm. mel ni comme eh, bakkaar boobu moom bi mu faatoo gis nga yàlla na mu fayew moom mooy Abdullah ibnu Ubay ñi ca des ñu dóor leen mu jeex Abdullah eh, Safaan ibnu mu moo attal moom lañ tuumaaloon loola te dara amu ca dégg nga am na sax ñu wax ne moom sax du denc soxna te yéntu bi ko joxoon ndigal mu histoire bu gudd la te ci dugg waaye bi noppee dañuy wax ne nii boo ko bind sax moom moom Safaan ibnu mu attal néebu du lakk hmm. ba tey ba tey fukki tur ak eh, maanaam raw bil chamoon yahusa rabaloon law yahusa yesu yusuf binyamin daani naftali jaadi asir ma wax ko moom itam ba tey fukki tur ak ñaar yi awlaadu yaqoba fukk ak ñaar la ñoon ni moom it ku ko def duñ ko sàcc du lakk hmm. ma jox ko nit ñi comme njëriñ la rek ñu dugalaale ci loolu hmm. waaw léegi nag eh, sisi bi niñ ko waxee dañoo dem ba toll foo xam ne fi ne nii maanaam ger ak woor ak njuuj njaaj dégg nga ak bëgg àdduna ak fen ak ak dégg nga ak jaxase moo fees dell ci réew mi léegi ndax lii ak ñoom mag ñi liggéeyoon lu baax lii ndax ñoom lii la leen yàlla war a fayee neel kon fokk yàlla suñu boppam dañuy wax ne furle boo déggee baatu baatu Saloum Saloum laa la wax nag. suñuy daan di daan di daan euh, Ousmane dafa ñëw furle. ku fi ñëw ñu daan la ku ñëw ñu daan la ku ñëw ñu daan keneen ki jóg ñëw nga xam ne day takkaay moom dañ ne kii moom na ñëw furle. sëñ sëñ Basiru Sakar yàlla suñu wajur wax naa ko moo ne euh, bisimilah ma dee xam ne kii ci làmb yi te kenn du furle sëriñ Tuubaa la waxal borom jumaa ji sëriñ bu mag moo gën junni alaaji <laughs> moo sëñ Basiru moo waxoon loolu radiyallaahu anhu siyaara njabootam yëpp <clears throat> ñi nga xam ne ñoo lekk alal ji nag dégg nga balaa fàtte eh, sëñ balaa ma fàtte ñi nga xam ne ñoo lekk alal ji nag goxi ndax kii nga xam ne mooy Birahim Seck Forum Civil war nga xam ne tudd naa mhm. te fu ne ñoom sax dimbale nañ nit am na ku ma dégg ci ñoom mu wax ne fu ne ñoom sax def na ñëpp ay service na fu ne ni man mi xamoon ci wàllu at yi seen at yi dara waaye fu ne nii maa ngi ciy bëgg a am xam-xam. ndax dëgg moom dëgg genn rek la te loo xoolee alxuraan léppam ci biir gis nga. Mm. dafay ñëw taxaw ne Mame Mbaye Niang bi mu jógee ma tudd ko sax ba tey. man dama doon wax baayam di sama mag mu métti ma lool. Mm. ñii ñëw ci sama seere dama daan wax ne su ma jotoon téléphone am baayam dinaa ko ne génnal ci lii sa xale bi génne ko ci xale la. Mm. fipp yi muy doxee ak di ree di kankange di ree di yii jëmul fenn. te dëgg day ñëw si. waaye fi ñu toll nii loolee tey dana war ci kawam ndax dëgg gi Eh, président Ousmane mënu ko jéggale président Diomaye mënu ko jéggale ndax dafa am ci aji saar ñu ci faatu. ñoo xam ne dañoo toog rey leen lan la ñuy reyee al bal bal réel teel ñu dee teel ñu dee bañ wax ne mujj gi dem nañ ba am ku wax ne liñ sotti ci géej gi kenn xam mu toll. kon al fitnatu naaimatu la ana la man ay xasaa fitna nelaw na yàlla rëbban ko yee ñoom ñi fitna yi mooy président Macky di sama mag doon sama kóllëre démb du tey de. waaw hmm. mooy ne xultu maa yakun na an atakallama bi haza subhanaka haza butaan azim dégg nga mm. buñ ci wax lii du réew mu warta jege ni mm. responsabilité am la nag waaye li wér mooy bépp àtte boo xam ne àtte nga ci àtte yi ñu ko attoon nañ ko àtte at mm. kuñ ci war a tëj tëj la kuñ ci war a duma duma la kuñ ci war a suspension eh, eh, nu mu tuddati kuñ ci war a dàq dàq la lu ñu leen war a def def leen ko loolu mooy dëgg dëgg yi nag laay wax man Mm. waaw ndax am na ay kilifa yu teel a jox sax naan eh, bu ñu leen bàyyi bu ñu leen bàyyi bu ñu la en tout cas la ñu wax Ousmane moom Ousmane nangam Ousmane la loolu ci dereb Ousmane boobu moom bu leen ko jéggale ndax moom jéggalekat la loolu eh, day jàll rek ci liggéey waaye lay ci alal nga ne la ñu dénkoon ko ay nit ñu wor ñooñu nañ ko lijjantiwaat ba lépp dellu ci loxo yi ndax kat am na benn bis ma dégg Ousmane di tontu am ñu ko laajoon ne ko waa yow su fekkee occidentaux yi jubawul ak ñoom ci ni nga waxee yow boo fi toogoon noo man foo mën a jëlee xaalis mu leen alal ji ne ci réew mi suñ ko nangoo ba teg ko ci yoon réew mi réew mi jekk réew mi xam ni balaa ñu dem ay BRT ak ay e TER ay nangam nangam dañoo waroon fexe kilo ceeb ñu ne kilo ceeb mu ngi jar ñaar fukki dërëm ak a baaxoon. man mi dana baax ci man. dana baax ci réew mi yëpp. yéen ñi nga xam ne ni da ngeen di toog yéen yori milliard moom milliard nu ko nit du yoree ah milliard nit du yore ñu toog la seetaan ñuy kàng-kàng yi di ree yori kat kat dañoo fuuy lii war nañ ko lijjanti yëpp teg ko ci yoon. Hmm. milliard du xalalu caaxaan ndax borom xam-xam yi wax nañ ne milliard mooy koo xam ne day bis bu ne nga dundee fukki junne ba muy téeméer ci nga yeewoo ba mën a yor dépense xam nga ne dootu fa dundaat téeméer yenn yàlla may ñu ko ñu am ko waaye bañ ci ba nga juddoo ba ba nga ngay faatu la yoroon mën a doon. waaw mais xoolal bis bu ne loolu kenn amu ko. nga jël ci yor ci fanweeri milliards nangami milliards yor ko ba pare nag yow dañ caa waroon a boole yërmande. buñ jéngee ba jéng di lor nit ñi nit ñi mën ko muñ wëlbati weneen xat hmm. waaye di lor nit ñi di dóor xoolal fu ne Sonko mi li mu nekk candidat di ci Mame Mbaye Niang la bàyyee ko du ba bàyyi ma ko seetaan mm-hmm. waaw bàyyi imaam imaam imaam Niang xam naa ko imaam Mbaye Niang xam naa ko bu baax njaarim gii la doon jàngale daan na ko mo di ko seetaan ci téere di ko dégg muy muy wane lu baax kon wartoon a seetaan moom waroon naa wax ba ñëpp xam ne bañ na ko mm-hmm. doom bi mu génne ko ci lii mm-hmm. waaw jërëjëf euh, li nga xam ne balaa ma balaa ma ci est-ce que tamit bu fekkee ni ci sustice lañ jëm rek. Hmm. li nga xam ne ñoom ñooy jëloon alalu réew mi. Hmm. Ousmane Sonko waxoon ne même bu fa tabaxoon gracier sax dinañ ko nangu. Hmm. mais est-ce que buñ demee ba dugg ci procédure yooyu duñ wax ne loolu fayantoo la. ak euh, li nga xam ne Macky Sall bi muy soog a toog loolu la amaloon ci Karim Wade na day lijjanti xaalis bi. ñëpp àndoon ci ak moom. est bu Ousmane Sonko jëmee ci bu président Diomaye jëmee ci loolu. est-ce que ba tey duñ wax ne loolu ñii daal dañu jël justice bi ngir bëgg a fay. lool tamit du doon beneen coow bu amaat. waaw ñetti ñetti ñetti ñetti gisin day am ci nit ñi koo xam ne lu baax lay xalaat di ko wax di ko def lu Sëriñ Tuubaa waxoon euh, dégg di yéene yiw di jëfi yiw di waxu yiw taxaw ko yiw moo tax am yiw sax ci yow xawlul xayri niitul xayri xawlul xayri fi'lul xayri hubbul xayri mu laa ma sa mu laa ma sa mu laa samatul xayri mu ne yiw rek ngay am am na ñoo xam ne foofu lañ ne ñoo xam dañuy xalaat lu nit ñi wax rek ñu xalaate ko ni ko nit ñi waxee ñaar am na ñoo xam ne dañuy xalaat xalaat yu bon yoo xam ne iblis ñu ngi am koro ak iblis su nga am na ku taxaw ne dañ ko war a rey am ku taxa ne affaire rey affaire nag yooyu yëpp ko. ñoo ñu leen wax loolu. bu leen leen mere iblis ñoo leen di yebal dégg nga. Eh, su ma awras naa kitaab la na safay naa min abadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasirun wa minhum sabiqun bil xayraati bi isnillahi salika wal fadlul kabir dégg nga alquran di netti loon ne ñett ñoo am muy sabiqun dégg nga zaalimul nafsi yi moo ñooñale ku toog di di di di carte di mariage di fen di yax di xëy rek iblis solo la kii xalaat yi bon a bon ngay xalaat ci réew mi yoo ne kenn mosu xalaat dañu naan waa jàpp ñu baax ni kii ni ko mën a xalaatee li am ñoo xam ne ñoom ci lu baax la ñuy nekk léeg-léeg léeg ñu ne ci lu bon mooy muxtasir mooy li ci diggante bi am koo xam ne moom saabixoon bil xayraati bi bismillah ci lu baax rek lay xalaat kooka de xalaat ne ñii lu ñu war a defal waaye lii dëgg tey dëgg man mii gënuma leen a xam dëgg waaye Eh, eh, Mohamed yaa ngi koy jàng ci sa téere bi Sëñ di ko wax eh, fa leer du di am waale ah, dégg nga liir arbaa bi in faqadal da bi lartiyaa bi mu ne su fekkee nit nit ki da daf laa ameel da nga ko ameel xaalis dégg nga dem fekk nit ko taxaw nga agressé ko nangu alalam dem ba mu yàgg yàlla jubal la nga bëgg a jub dégg nga att bii laa indi ci ñëpp nga ne man bëgg naa jub waaye diw mii de jub mii de damaa romboon man nangoo aw fasam te fu ne kenn xamu ko waaye fas yu njëggi lekk naa ko la mooy dégg demal nga delloo ko alal ji su fekkee am mag la woon moo mag mu ne fële moo xam ne mag ma loolu yàgg na nga ne mag mi de dem na ba mu yàgg gisatuma ko nga dem ana diw sàngam ñu ne eh, diw na faatu woon na yàgg tem na téeméeri at waaye faatu na nga ne ana doom ñu ne ñu ngi nii ñu ana gisuma leen ana sëtam yi ñu ne ñu ngi nii nga am ña koy doon nga jox leen alal ji jii kat eh, président Macky Sall moomu ko woon hmm. dañ ko wóoloon jox ko kon kat mënu koo maye Ousmane président Ousmane mënu ko maye président Diomaye mënu ko maye la ñuy mën a def mooy koo xam ne ñëw wax na leen lu ñaaw ñu muñ ko moom te yàlla tax di jégal di jélale te bañ a ubbi benn dossier boo xam ne yu mel nii di ko bañ a defati waaye li jàlloon moom foog ñu àtte ndax ay nit a ci dee mm-hmm. waaw nit buñu dee ba wax ne nangami junne ñu ci dee ci affaire Adji Sarr affaire Mame Mbaye Niang mi jog li démb dama ko xool jooy dama ko xool rek jooy bi ñu ubbi su Ousmane bi ñu dóor porti yi di ko di ko dóor dama ko xool rek jooy ma xam ne man bu moom bu ma moowoon fekkoon ne am na lool bu ma ko mënoon rek musiba dal seen kaw te loolu ndax Eh, boo toogee di jàng alxuraan wala ngay wir de tur yàlla mu yàgg nit def nit dara sa xol naqari nga jooy ci yàlla dana la fayu yàlla fayal nañu hmm. xolo bi ñu téye di di toj eh, potam yi xool loolu lu ko gën a ñaaw ah xolo toog fu ne ni ñëw fi si kër ah? Hmm. ah ak jàpp di tëj xolo yow jutaay mi xoolal jaw xolo eh, Bassirou Diomaye xolo Sonko xolo nangam hmm. di tëj nit ñi di toroxal nit ñi di insisi boobu fokk ñu àtte ko alal ji moom waxaale nga ndax alal ji moom Eh, ñoom ñi fi jaaroon ñëpp kenn moomu ko ci ku ci ne loo goxoon li nga wax Diop Taïf eh, ko tuddee opération gox yi pour jeexal ñi ngi ci département bu Mbacké quatre-vingt-sept pour cent lañ jox ñi nga xam ne ñoom ñooy président Diomaye dugg nañ daanaka ci département bi yëpp eh, maa ngi koy wax démb nee naa ginnaaw bu ñu génnee Touba ak Mbacké hmm. ak Taïf ak Belel ak Tiib amul benn yoon boo xam ne mi ngi ci biir département Mbacké benn dëkk bo xam ne mi ngi ci biir département bo xam ne aw yoon am na fa wala école wala li nga xam ne moom mooy courant am na sax dëkk yoo xam ne amuñu ndox mm-hmm. euh, ci douze ans au yoo xam ne ñee def nañ ko fi mm-hmm. est-ce que loolu euh, mën na expliquer li nga xam ne moom mooy euh, sanctionné gi nga xam ne waa département bi sanctionné nañ ko mm-hmm. te muy département boo xam ne moo ëpp ñu fi dund ci Sénégal dañoo dañoo sonn dañoo sonn waaye ñi fi ne ñi fi nekkoon mënuñoo dimbali sax seen bopp sàkk keneen ñoom boo leen xamee sax da leen di yërëm. Hmm. xam nga Cheikhul Khadim xaadaloo la maxtaaraloo hmm. dafa waxoon ne réew mi moo xam leen réew mi ni muy doxee mu ne moo ko njëkk yor dama ko bëgg a tënk mu gàtt ku dégg ni ma ko waxee nga jàpp ne dama ko nga xam ne dama ko tënk rek hmm. ndobin moo ko njëkk yor ndobin ah ñu jeexalaale ci sax waaw ndobin moo ko njëkk yor ndobin ki xam nga ne ndobin moom dafa ñuul kooku ndobin dañuy wax ne sax mag ñi dañ daa wax ne booy tukki ba gis ko dàq ko ndax ci poqutaan mi ñaari dunq ci ne yu weex benn weex fi benn weex fi nga xam ne moom fi naawoo rek boo gisul sax sa yoon du leer nga xam da koy topp di dàq di dàq bo ba ndóbin ginnaaw nga doo gis donc ñaari donc yu weex rek la dafa ñuul kukk mu ne moo fi ne mooy Sénégal ku lëndëm la. ñu ci bàyyee ko dégg lii mu jël fii ci euh, frontière Mauritanie bi ñuy wax ne su fekkoon Sénégal jotoon nañ ci tey kon pétrole beeg or beeg yi ñuy wax noonu yëpp kon ñu koy moom. te loolu Senghor moo ko joxoon loolu beneen mbir la. Hmm. Eh, ki fi toogaat Abdou Diouf mu ne ki fi toogaat tuddul seen tur waaye noonu lañ tegalee mu ne ki ci toppaat am naar lay doon naar lu mu mel ñu ne ko naar de day am donc koy weex ak ñun mu ne day rax mu ne ki ci toppaat moom day weex tàll waaye man lañ mbubboo mooy Abdoulaye Wade nit ku set la ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ndokkeel di ko félicité donte li mënta defar réew mi de waaye amoon na yërmande te jamonoom naatoon na moo ci tane Abdou Diouf Abdoulaye Wade daal laa wax ne moom moo ci tane hmm. dégg nga mu ne bu noppee nag réew mi dama koy def xalu sawara dafa dama koy def la de dama koy def xalu sawara mu ne xalu sa ku ko téye na ko yàllax ba mu neex ma ma seral ko ba mu sedd seet ku ma gërëm ma jox ko mooy Ousmane suñu yaakaar yar yàlla bu mu ci tas loolu waxi Sëñ Tuubaa lañu yàpp ne moom kon mooy Ousmane ndax tudd na xalu sawara yi kon ma koy xali sawara yi la daajeel moom du man a defar dara du mën a defar boppam yàqari ko fi nam ay dee ay fippu si nga gune yi day toog bu mu yàgg toog bu mu yàgg na man kan laa lan laa ndax man sama bii togg reer weer yi maa ngi dem ci kër diw bañu demee ay ganaar lañ togg ñu nangam nangam jël na saagam gis nga lii du dara man mi mun naa ko régler yomb régler la xam nga lan suñ jubee gune yi ndaw yi yaakaar ah, du tubaab yi dañuy wax na la jeunesse espoir naka lu la jeunesse espoir de moom xaw ma. waaw ñu ay yaakaar ndaw yi ñooy yaakaar yi suñ demee ñëw ba yaakaar suñu bopp musiba am na looloo fi amoon. Mm. fu ne na yaakaar ñëw na <clears throat> léegi <clears throat> région yëpp <clears throat> muy Touba ak li Touba boot yëpp diggante bi Touba Belel ba Taïf ba fii yëpp nga xam ne moo fi ne. Eh, ñoom mënuñ dama wax ne la bu leen sax sikk ñoom mënuñoo defaral seen bopp lañ yor noonu muy milliards yi ñu yor di ko pasar pasar sax mënuñ ko jëriñoo ndax njub ci la mën a ni gis nga eh, yor benn téeméer boo xam ne jëriñoo nga ko moo gën milliard boo xam ne jëriñoo nga ko te yàlla boo wooree wala nga sàcc doo ko war a jëriñoo gis nga loolu la mu bëri mooy boo yoree sa soxna dem sàcc alal dundalee ko mu dund ko di dégg nga di dund loolu ëmb sa doom ëmb sa doom ba am doom doom jooju day jubali hmm. lii mooy li ne ci réew mi. léegi nag li nga xam ne loolu la ñuy dénk ñi fi nekk nii ñoom kat man kontaan naa ci sant naa ci yàlla ndax loolu sëñ Tuubaa waxoon ne bu demee ba mu yàgg dama ko seeral seet ku ma ku ma ku ma gërëm ma jox ko. Mm-hmm. kon du du benn euh, président du benn président Diomaye waaye ñun njaboot gépp la ndax soo yor sëñ yëpp ku ne fa nga ne yaa ngi fay liggéey sëñ Tuubaa te moom nga yaakaar te kon bu ñu ko joxee jamono ju sedd yaakaar naa ne liggéey bi sëñ Tuubaa di liggéey dana gën a yomb mm-hmm. kon ñu di leen dénk rek ñu jàppale jàppale réew mi gis nga fii ci Touba kii fi doon wuur réew mi te jotu ci am na lu mu leen ci digoon loo xam ne moom moom président Diomaye ak président Ousmane nañ fexe loolu ñu mottali ko mooy mm. fexe ba ndoxu Lac de Guiers mi ñu indi ko Touba mm. loolu suñ ko defee mm. dañ ko defal Serigne Touba ndax Serigne Touba defal naa Serigne Touba mooy defal naa jullit yëpp defe naa loolu dana yaatu te ñiy defar seen kër yi Touba ndox mi di ko jël wal mi di ko jël jafe-jafe yi di am defe naa man mi benn xam macha boo fa yoree ay kër am na ñu fa yore ay kër. Hmm. xam nañ ci dara fii ci Taïf forage bi fi nekk sëñ Mohamed moo ko ubbiwoon Diop su ma jumul 1984 la wala 85 ñëwoon naa ci laa njëkk ñëw Taïf fii 1984 wala 85 Diop la ñu ubbiwoon defe naa gune yi ñu ah. bëri dégg nga tey jii président bii fi nekk nii boobu ñeenti at la am muy hmm. président Diomaye kon yà eh, yàgg na hmm. ci lañ ñëwoon suñ Mbàkke Mohamed ubbi forage bi Abdou Diouf defal ko fi defe naa boobu léegi dara yokku ci. ñi fi jaar di doon ab taalibeem di Macky Sall eh, ñun ñëpp bi mu faloo ñu kontaan dene dëkk bi dana baax defe naa dara baaxu fi kon daal ñu wax ne ñoom ñi fi toog am nañ sas wu rëy woo xam ne buñ ñu ñalooti bu ñu toog bu ñu yaafus nañ gën a góorgóorlu dolli ci lañ góorgóorlu ndax ñëpp xam nañ leen ñoom ñëpp ñi àndal muy Pastef góorgóorlu ak Pastef moo tax ñu jot ci réew mi ndax nit ñi lu baax rek lañ bëgg bu ñu la xoolee gis nga nga toog hmm, du ñëw fekk nga toog demal la yee ko suñu waajur waxoon na sëñ Bassirou Seck mu ne demal xeeko nguur gaa ngi moo koy falu mosul am du am mukk yeewul njulu demal xee ko mu ñëw falu du am jëlee nañ leen ci kaso gi fal leen kon mu ngi nii tey li mooy nañ góorgóorlu ci dëkk bi góorgóorlu ci réew mi rawatina région bi nga xam ne mooy mooy mooy Touba ak Taïf ni nii nga ko waxee daal dëkk yi nga tudd yëpp waaw département bi nga xam ne mooy département Mbàkke bi ñu góorgóorlu ci ndax li mooy am na ñu ñii doon leen jàppale am nañ ci ndam waaye ñoom am nañ ci ndam ndax 80 pour cent ku ne xam na ne jël nga lépp te boo ko xoolee yeneen yi ci des ay taalibe taalibe lañ buñ buñ mos mosoo li ci des rek dafay daal di jeex hmm. waa xam nañ ne kon quatre-vingt pour cent muy cent pour cent rek asalaamaaleykum wa rahmatulah hmm. jërëjëf euh, Serigne Babacar Ndiaye Xaadimul Xaadim kon xam naa ne dañuy jeexal rek sàkku nga ñaanal ñu waaye tamit soñ euh, soññiwaale ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal muy euh, ndawi Pastef yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di Taif hmm. moom ñaan gi nangu na fu ne nii moom lu baax Sëñ Tuubaa noonu lu baax jafe na de mu ne ma ne lu baax jafe na de ñu mu geesu yem ci xool ci wetam gis sëñ Masamba mu ne Masamba mu ko ma ne Mbàkke ko ma lu baax jafe ne ko waaw mu ne ko ko di di ko ba ko jafe na mu ne ko waaye yor ko gën a ne nag nañ fa boo dañu gën a takkaayu ndax Cheikh Moussa waxoon na ne Cheikh Mamadou Moussa mu ne loolu Sëñ Tuubaa waxoon ma firi leen ko mooy boo laxasoo di wut lu baax ba am ko utal juróom-ñeenti laxasaay tekki mooy tax nga mën ko yor kon réew mii neexu la yor ndax njub dégg nga jubadi Euh, ger corruption fen sàcc bëre xeex loraange maanaam yu bon yëpp nga ci réew mi te ñu baax ñaa ngi fi kon nag ñu baax ñooñu seen barke na wëlbati jamaano ji ba ñi doon def li yëpp ñu jàpp leen euh, waxuma sax yéene wu ma leen kaso ni ñu ko yéene woon euh, président Ousmane ak président Diop mi ak yéen ñi yéene wu ma leen kaso waaye nag lépp lañu yor nañ ko jël teg ko ci yoon ba ñëpp yemale saako ceeb bii di jariñ ñeenti junni ak ñaar tamit léegi léegi léegi na dégg ne soppeeku na de eh, président Ousmane hmm. président Diomaye naa dégg léegi ceeb bi soppeeku diwlin gi naa dégg mu soppeeku màggalu tuba ngi ñëw yal nañ ko fekkee ti tal ko fu ne ñu weer koor woori diggi Tabaski Tamxarit diggi juróomi weer a fi des màggalu Tuubaa ñëw balaa màggalu Tuubaa fii hmm. na ngeen fexe fu ne nii tàmbali liggéey fi ngeen ko tàmbali yoon yi yooyu yëpp ab tàmbali la waaye na dal bi ak diwlin gi suukar si dégg hmm. li nga xam ne ñëpp ko bokk. na daal yomb léegi léegi léegi na nekk seen jéego bu njëkk wasalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Babacar Ndiaye xaadimul xaadim moom la ñu seet si woon fii ci daaram muy Touba Taïf Mbacké di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah.